dégg nañ Cheikh Bara bi mu fi toogee li mu fi wax avoir yooyu yëpp tey jii ñu ne suñ ko recouvrer l'État du Sénégal pourra euh, se mettre au travail déjà ses premiers chantiers mais est-ce que également li ñuy wax naan fi mu nekk les caisses de l'État sont vides waaw xam nga moo tax sànq ma ne euh, euh, euh, pouvoir bi bu ñu jëlee dossier yi li ñuy njëkk a def mooy état des lieux parce que quand souvent justice la ñuy joxoñ mais gis nañ ne daanaka ci yeneen secteur yëpp soo fa demee ay yàqu-yàqu yu baree nga fa mhm. bu ñu commencé euh, d'abord ci euh, wàllu économie tey nguur gi nga xamante ne nii yegsi nañu xam naa ne euh, seeni jafe-jafe dina bokk ci naka la ñuy def ba kat plus de quatorze mille milliards yi nga xamante ne nii Macky Sall bàyyil nañu ko fi naka la ñuy def ba remboursé ko euh, souvent damay rappeler ne en 2012 bi Abdoulaye Wade di quitter pouvoir bi Sénégal mu ngi amoon dettu trois mille deux cent et quelques milliards en douze ans Macky Sall yóbbu na ko ba quatorze mille milliards loolu xaalis bu ñuy fay la. Mhm. wax naa fi également la dernière fois que euh, euh, Macky Sall daf fi luye woon benn centrale flottante bu nekk fii port. boo xamante ne ni quinze pour cent électricité Sénégal. moom moo ko daan fournir contrat ba c'était cinq ans de deux mille dix neuf à deux mille vingt quatre mhm. loolu bu nekkee contrat ba jeex na renouveler wuñ ko déficit courant boobu naka la ñuy def ba fair face ak moom mhm. donc mu nekk euh, secteur euh, yëpp yoo xamante ne nii am nañu solo même yoo xamante ni sax mun nañu jàpp ne dese nañu solo mais ay jafe-jafe la ñoo ci gën a bari donc euh, ñu bëri di xalaat ak pouvoir bi nga xamante ne ni day doog a ñëw jafe-jafe yooyu nga xamante ne dina ko fi fekk ana sax naka lay def quelque part ba fay fonctionnaire yi nga xamante ne ni ñu ngi liggéeyal état du Sénégal. oui te bu ñu fàtte ne maître Abdoulaye Wade ba mu fi jógee en 2012 bokkoon na ci li mu doon dànkaafoo pouvoir bi ko remplacer. Mhm. mooy que 3 mois dootul mën a fay salaire. Mhm. ni nga ko waxee nag dëgg la bu nekkee ne dafa am foo xamante ne ni war nañu faa jàpp war nañoo jàpp ne foofu war nañ faa mën a jëlee xaalis jàpp ne. au-delà euh, euh, du train de vie de l'État maa ngi koy wax la dernière fois bu nekkee en cinq ans jënd nañ plus de trois cent milliards ci oto mën nañu def de sorte que du demeewaat noonu bu dee pouvoir bu bees moo ñëw yaa également institution yi nga xamante ni amuñu benn njëriñ suñu fi nekkul lool du yàqal dara Sénégal ci nu muy doxee mais beneen source bi nga xamante ni du ñu war a mën a euh, comment dire euh, jël mu disponible ci saa si mooy li gars yi téye seen kër yeeg seen banque yi. te yeyoowuñu ko moomuñu ko donc euh, pour man euh, euh, sànq maa koy bëgg a laaj maître Tall. mais daanaka sax ci biir wax ji indil na ma tontu. Mhm. parce que tey Sénégal ñenn ñi comment dire ni ñuy waxee ak pouvoir bi quelque part di naan ay chasse aux sorcières warul am fayonte warul am fayonte warul am ba loolu tax ñoom ñu bañ ñu naan dañuy fayantu ñu gëmm ci seen bët. ay dossiers yoo xamante nii defal leer te war a am ay poursuite mhm. bu ñu toogee ba ne benn député sàcc nañ ay quelque huit cent millions këram te député boobu amul lenn loo xamante ni mu ngi koy liggéey officiellement lu war a mën a tax muy am néegu xaalis pour man loolu lu état bi war a lijjanti la ñu am fi tamit des fonctionnaires yoo xamante ne ni mais ñëpp ñu ngi leen di naan c'est des milliardaires te xam nga li gën a doy waat sax ci décret bi nga xamante ni président Macky Sall signé na ko fi bàyyi ñu bëri dañuy concentré wu trop trop trop ci cour suprême di ne premier président ah. cour suprême bi le président Macky Sall nommé alors que pôle financier bi bi nga xamante ne nii normalement moo waroon a remplacer CREI yi war a topp ñi nga xamante ne nii dañoo luubal xaalisu Sénégal mhm. mais kooku nekkul président Macky Sall moo ko war a fal puisque euh, jàpp nañu ne bu amee déjà ñu muy saytu ñi ci war a jiitu mooy ñi ànd ak Macky Sall. Mhm. te boo seetloo 2012 man damay jël toujours damay def toujours comparaison bi ak 2012 bi président Macky Sall di doog a ñëw dama wax ne mois d' avril la prêter serment mois de mai mu ressuscité CREI. Mhm. nommé moom ci boppam magistrat yi nga xamante ni ñooy constituer cour boobu mais est ce que Abdoulaye Wade waxoon na ne comme que man damay dem te Macky Sall mi kat mun na utiliser CREI bi bien que 81 la ñu ko créé. ci diggante bi ñaari dossier la fi jugé mu ne mais garaawul balaa maa dem dama koy yóbbaale deful loolu dafa bàyyi créer continuer di nekk ba loolu tax Macky Sall ni ñëw en personne nommé ay magistrats foofu munoon na également bañ ne du ko supprimer mais mu nommé des magistrats yoo xamante ni jàpp nañu ne ils lui sont teg leen ci kaw boppu CREI bu boobaa Macky naka lay def day ñëw bëgg a la traque des biens mal acquis mais fekk fa cour boo xamante ni les magistrats ne lui sont favorables donc pour man. te leneen li nga xamante nii ñu bëri ñu ngi koy wax te jusqu'à présent waxuñu ne waxuñu ñu ngi ne euh, comment dire Bassirou Diomaye avant muy euh, président Bassirou Diomaye avant muy abroger euh, le le décret là ñu ne dafa waroon a comment dire rencontrer le conseil supérieur de la magistrature léegi ñooñu ñu nommé suñu jëloon ay actes ci diggante bi naka lay demee mm-hmm. boo abrégé décret bi te ñoom ci diggante bi jël nañ ay acte comment ça va mm-hmm. donc moo tax ma ne ci timing bii nga xamante ni ñooñu nommé nañ leen te jëlaguñu benn décision nekkaguñu ci lenn loo xamante ni xëy na mën na mën na tënk président bi période boobu la baaxee pour euh, euh, effectivement ñu dindi leen fa mm-hmm. maintenant euh, euh, je pense que du doon fayonte mais quand même xaalisu Sénégal bi nga xamante nii ñu bëri téye nañ ko <laughs> daan dem ay élection di distribuer xaalis ba nga jàpp ne ñii est-ce que duñ ay guichet automatique de euh, guichet automatique de banque mais ñooñu effectivement il faut que état bi topp leen il faut que li nga xamante ni yor nañ ko te yelloowuñ ko ñu delloo ko ci caisse de l'État parce que tey jii nii ay priorité bëri nañu fi maître mooy li maam Birame wax est-ce que tey jii ñëpp ni ñu nekkee à l'assaut di ci wax naan euh, bu mu nekk chasse aux sorcières bu ñu fayoon